dal leen ak jàmm loo waxadi waxadi soo gisee nen na nene ngi wala sax beneen nene ngi waat ni ginnaaw rangu mi nekkoon animatrice Sen TV jël boppam di ko sàmm ci réseaux sociaux yi ba weñ yëpp di ko biiw keneen ki wane boppam mooy kan xanaa du kenn kuddul la yaa awa rasul mi ñu xam loola ci tele bi daanaka jamono ji mel na ni wanewu dafa xew colin gu ñàkk ma gi mel ni mbàccum gerte yaa awa génnatina ñëwatina defatina bës melokaanu colinam ba ca soirée Sidi jóob tax na ba teewaayam kenn umpalewu ko fa ñëpp di ko xool moom yaa awa ab robb bu rouge daal moom la sol waaye robb ba na mu mel maara day tàlli dënn ba yépp mi ngi ci biti maanaam kiyam yaa nga ca biti wax ju yegg dafa ko moom gisoon nañ fi tooj gis fi itam paccal waaye bii moom xanaa fàngaaral rek la mën tudd naka la yegg sey ci soirée ba ne tëll man yépp daal di tourné jàkkaarloo ak moom muy jaagar jaagar yi assurance am nag maanaam daal li mu def sax safu ko yëngalu ko daanaka sax lu mu namoon la mu mel ni lii sax du guleet ndax moom yaa awa yàggoon na ci page Instagram am di poste yenn ci ay photo yoo xamante ne daanaka méngoo na ak lii mu sol ci soirée bi mu mel ni defatina mëninam ci publier gu mu doon publier ay photo ay nataalam yu nga xamante ne daf ciy jaay taaram tey faral di fësal lenn ci yaramam jar na koom jaru ko yaa awa daal bu dee buzz nga doon ut am nga ko waa léegi am nga buzz après mu jeex jaajëf ya awa thank you waaye gi xeetu buzz lu la ci nara fekk tontu bi daal bàyyee naa ko tonton Ira Ndaw